salaamaaleykum euh, yéen ñi di seetaan suñu chaîne bi di jot Jotna TV tey mooy suñu chronique numéro 14. ci chronique numéro 14 bi dañ ci euh, ñëw rek ci lu tiis a tiis a tiis foog naa ne. ku am seetlu ci Sénégal gu ñu nekk nii war nga ci am tiitaange ak njaqare gu métti métti métti semaine bii ñu génn ci altine gi dañoo dégg président de la république Macky Sall wax ni Sénégal amul moyen yu mu rapatrier fukk ak ñaar wala fukk ak ñett doomam yooyu nekk ci Wuhan ci Chine nga xamante ne yàlla def leen teg natub feebar boo xamante ne gaaw na lool lool lool ci faat doomu aadama mu mel ni capitule moom def na ko moom mi nga xamante ne mu ngi dox subaak ngoon ak ñoñam di ñu gëmloo ne Sénégal dëkk bu nekk ci rampe de l'émergence la maanaam mu ngi taxawee taxawaayu dëkk boo xamante ne suqaliku na da am pression rek pour wax euh, envie wax ne mais de de qui est-ce qu'on naka lañ mën a amee fukk ak ñaar wala ñett bakkan doomu aadama di ay sénégalais ñoo xam ne fi ñu nekkoon nekk fa seen seen yeneen naataango yeneen réew réew yooyu def nañ seen kemtalaay kàttan ak nu ñu bare bare bare pour yóbbu fa ay moyens yu yu leen permettre ñu jël seen doom yooyu soril leen fi musiba boobu amee ñun noppiwuñu mettut lu mbir mi jéemuñu dara ba tële suñu président dal di jóg ne mënul nekk maanaam kon ñun résigné woon nañu bàyyi leen foofu ak seen seen bopp lu leen dal baax na moo tax bi ma doon déglu waajuru xale yooyu di jànge Chine di wax sama yaram dafa daw ndax bu ñu demee ba wax ne ñun bëgguñu deewee fii ñu di ñu làkk dañoo bëgg bu ñu deewee même bu dee fii la suñu néew gi jëmaat Sénégal ñu julli ñu defar ñu denkuñu denc ñu fi ñu denc suñuy ñoñ ñu di ñu ñaanal nga xam ne mbir mi du question kese de dund rekk mais naka lañ la war a traité gannaaw bi nga juddoo ci ci ci ci jullit dund ci jullit deewee ci jullit ak foo sori sori doon fa jaamu yàlla ci ci ci sartu jullit waaye lenn rek de moo ma wóor mooy président de la république nee na amuñu moyen yu ñu demee jëli ñooñu fukk ak ñaar fukk ak ñett sax laa dégg ñuy wax waaye moom am na moyen sol avion présidentiel bi nga xamante ne moom jënd ko defaru ko ndax sénégalais yi ñoo ko cotiser jënd te buñ koy jënd sax liy wane ne moom taxul ñu koy jënd en tant que nit ki mais institution bu ma représenté di xëy ci suñuy soxla di ci gont di ci yendu moo tax ñu jëndoon ko biñ koy jënd fekku ko fi président Abdoulaye la fi fekk te buy dem tamit président bii di ñëw ak nu mu mën di tudd avion boobu la la la lay utiliser mais avion boobu ñaata yoon la dem Chine ñaata yoon la Pointe Sangomar dem Chine wala fu gën a sore Chine doxi fa soxla gu gën a ñàkk fay de dem sauvé ji fukk fukki bakkan ak ñaar wala fukki bakkan ak ñett ñaata yoon wala avion bi dafa jékki-jékki xat-xataay goo xamante ne fukk ak ñaar xeet fukk ak ñaar xeet ñu ci mu bëgg ñoo gëmloo moom président de la République pour dem foofu dafa demander ay moyens ak yu kenn xamul benn sénégalais gëmu parce que seetlu gi dafa yomb seetlu gi dafa yomb d'ailleurs dans la même période waroon dem Corée correction dafa sorante man de lenn ma mën naa ko waat bu fa Tata Marème nekkoon mu fekk ko fa ñu contour ñu cantonné ko nu ñu cantonné fukk ak ñaari sénégalais yooyu dina ko dem jëli ji même bu ney boom kenn la bu fa rakam nekkoon wala ay doomam ñoom Aliou Sall ak ñoom Amadou Sall nekk fa dina leen dem jëli ji te kat du mos a wax affaire moyen mais c'est parce que. bakkan yooyu moom jàppeewu te noonu la parce que boo le président de la république ñëpp nga boole protection dund sénégalais waroon nañu jaral ñun Sénégal ñu jëlee fi avion dem nous ji un mais dafa am te neex vérifier parce que ñun xam nañ ne amuñu ay contraintes techniques suñu médecin kañ lañ fi nulaar nulaar goo xamante ne ñoom mënuñu dem jël ji des des des individus sains ci foo xamante ne épidémie am na fa jël seen disposition yi jëlee leen fa def lu ñu jël matuwaay yu ñu war a jël jël ko ci jumtuwaay yu ñu leen demee jël ji wàcce leen fi mettre leen en quarantaine mettre leen en observation ñun ñëpp ñu booloo nag di leen ñaanal dara bañ leen dal bu boobaa mais suñu médecin yi mën nañ ko def. dëkk yii nii di dem di rapatrie seen doom yi di Algérie di Maroc seen médecin fii la ñuy jàngee fii ñi leen jàngal ñu ngi fii ñu ñu jàngandoor ñu leen ci njàng ñu ngi fii ñu bëgg ñoo gëmloo ne ñun ñi nga xamante ne benn cas Ebola bu ñu fi amoon ñu traité ko ba mun a cocc te keneen amu ko te Ebola gën a garaaw fuuf coronavirus ñun mënuñu loolu yàggul dara la doon def. Euh, di sargal waa waa waa waa waa faculté de médecine mais bu mu fa jógee dafa ne dina ubbiwaat dina waat yeneen professeur titulaire de chaire te temps yi la def na ko ci conseil des ministres doon leen félicité leen sargal ndax ni nga xamante ne bu ñu demee agrégation ñoo fa raw mais ñu ñu raw seen dëkk yooyu ñu ngi dal seen seen seen doom yi di leen andi wat kon prof yi nii di leen jàngal dajeeg ñoom ci concours d' di leen fa dóor dóor yu métti ñooñu noonu mënuñoo dem jël ay Sénégalais yu nekk Chine. wax ji kay def koo waxut waxu ko mais nit ñi xam nañ ko hmm. bu fa de bu fa avion ba demoon buñ ko yeewalee de takk ko bu ma dëgër ñu sànni woot ko ci biir doof dootu fa gaaw dugaat ndax fit gi moo ko ko mayul loolu kese la xam na ne bu fa nit ñi duggee même bu ñu toogee vingt jour ñu ne y a pas eu de y de cas de contamination sax moom dootu fa dugaat fit gi moo ko moo ko ko mayul loolu kese la kon fu mu nekk nii bakkanam boobu benn moom la weccoowee bakkanu fukk fukk fukk Sénégalais ak ñaar c'est ça la triste réalité wallahi la azim bu fa ama Amadou Sall nekkoon moom kese moom dina def discours am ne ay sénégalais lañ du def focus ci doomam waaye ñëpp la ñuy jël andiwaat fii et on va dire qu'on confiance à nos médecins suñu nangam nangam dugg na fii wax discours yu rafet yooyu mais doomu jàmbur yi nag yi fa nekk ay nit a leen jur. c'est des sénégalais li ñu yeneen euh, kii pop peuple yi rawee nag mu ngi nii bu ñu defee gi ci war fi rek lañ ñu rawé parce que ñoñu nit lañ jox worma dañ ko jox worma gu mat sëkk tout est fait articulé centré autour de l'humain et de son épanouissement li président Ousmane ko doon wax ne fii bu pré bu fi benn américain nekkoon américain bëgg ko bëgg ko sauver jar na leen ñu bombarder dëkk bi yëpp pour génne ko benn américain foofu lañ tolloogul moo tax lu ne mën na xew ci suñu hôpitaux yi suñu yoon nekku ci suñu yoon nekku ci ay nit mën nañ di dee parce que prise en charge normalul kenn du ci wax mën nañ di rey ay nit parce que sécurité bu doyul ñu nekk di jël police bi ak ak yëpp di leen concentré ci ay nit ñoo xamante ne ay ay flyers la ñuy distribuer ci marché bi police jàpp leen di foofu la ñuy concentrer suñu énergie ci ci ci faagaagal ay nit ñoo xamante ne dañu am seen seen seen seen seen seen sañ-sañ ak seen gëm-gëm war a mën a wax lu ñu xalaat ci dëkk bi ñooñ ngay topp teg leen police 24 heures sur 24 y compris bu ñu dee distribuer ay papier kese mais c'est quoi un flyer li ci nekk kay c'est pas c'est pas subversif lu jul expli expliquer li fi nekk courant bi cher na explique nit ñi lan moo tax ñu war a xeex par les voies qui sont légaux lég légal plutôt defuloo ko nit ñi di def loolu nga jël police di leen traquer ci marché yi ça signifie que yow yaa ngi jël kii force de l'ordre di leen ñàkkal fayda ci loo xamante ne du seen mission première et moo tax wallahi lazim man j'ai mal pour pour pour pour certaines corporations te sax amul ab dafa am ñu fës rek am ñu fësalewul mais ñi nekk dans la police ak dans les dans la gendarmerie wala ñu nekk dans la justice

déjà yow dara metti na la mënoo ko def defal sa bopp mais ñeneen ñi ko mën a def te mu wóor la sa biir xol bu ñu buñ buñu buñ bu ñu xaroon sa xol ñaxtu boobu nga fay fekk yow ñu nee la wëlbatikul nag ñooñu sax nag faf di di xeex loo xamante ni yow mënuloo ko xeex ndax tenue bi nga sol yow demal nga buntu xatal leen et ils sont obligés de le faire moo tax war dañ leen di masaw bu baax a baax a baax te di leen wax ne aussi ñu góorgóorlu rek ci lenn pour dara bañ a dugg seen diggante ak askan bi nga xamante ne moom lañ def le sacerdoce de protéger mooy dans les missions commandées yoo xamante ne mënuñ ci mënuñ ñàkk bu mu am benn zel bu mu am benn zel boo xamante ne mën na wane ne que dañ ci bëgg a ëppal mais lillahi wa rasulihi tey on est la risée du monde tel pays rapatrié na beneen dëkk rapatrié na Sénégal moom renoncé na livré na ay doomam au au coronavirus di compte nag ci yàlla ak yërmandeem ak mbaaxam dara bañ leen dal yàlla na ko yàlla def parce que loolu lañ dese puisque am na njiit moo xamante ne fukk bakkan ak benn ci sénégalais ak ñaar ci yu fa nekk wala ñett soxalu ko lu war a tey ne naa jël sama avion mais est-ce dañoo fàtte que chaque fois que suñu équipe di dem ci compétition mondiale mais Pointe Sangomar la ñuy jël avion présidentiel la ñuy affrété mu dem yóbbu leen bu ñu dee ñibbi si mu dem andiwaat leen. Si ñu doon dem Corée 2002 mais avion présidentiel moo leen yóbbu woon tey bu coupe du monde nekkoon Chine avion présidentiel moo leen de yóbbu ak délégation bi yëpp avion duñ ko tabax pour pour pour que avion présidentiel pour que 12 personnes bañ cee ma ñaxej même buñ ci xejul woon sax defal plusieurs voyages nga encore que c'est pas le cas kon amuloo problème avion bu mën a dem ba Chine amuloo problème équipe médecin ndax une technicité ak une xarañte ndax prouvé nañ ko ba contenir fii le virus Ebola ñëpp di ko rafetlu te Ebola moo gën a garaaw foofu coronavirus amuloo problème yooyu léegi yow daal benn problème nga am mooy doo dem louer avion pour andi leen parce que boo ko defee ñu ne la mais xaalis bi nga ci dugal lu tax suñu avion bopp mais puisque wóor na leen wóor na bu avion bi posé woon Chine deux minutes dawaat rek yow sabab doo fa ñemewaat dugaat parce que yaakaar nga ni ngelaw la na coronavirus nga résigné wu nag livré leen à la mort motax sénégalais buñu ñu né ki kii pour troisième mandat bi du marché sur des sur des corps allons nañ dem ba ci karam nañ dem ba ci amu ci ben scrupule té li ma leen ko wax li ci kanam nag rawati gët yalla nañ ci yalla musal en tout cas té ñu mu gor góorgóorlu aussi ci wén fan wénen fan sax lay wax parce que li déjà doyna catastrophe ci biir dëkk nga am président bo xamante il est à l'aise mais vraiment très à l'aise face caméra lors de la cérémonie de levée des couleurs bu war a jox la coup d'envoi de la semaine bu war a tax sénégalais yëpp di rey seen bopp pour dëkk dëkk bi euh, dab naa tànge nga taxaw foofu de façon solennelle ne dafa laaj ay moyens yu bëri mënuñu ci dara quand même léegi dëkk yi fa yóbbu nu dem jëli seen doom yan xanaa du ay avion rek lañ yóbbu mais beneen affaire mooy semaine bii ñaata entreprise lañ dégg ne que dàq nañ fa ay sénégalais yi fa doon liggéey. après tout est normal quoi ñaata entreprise wax nañu ne Sonacos temps yële dàq na ay mille léegi CDE ensuite dégg nga ci euh, Cefos fële Thiès donc nii daal nañ ko nar jàppee di gis parce que lii mooy nag sukuraatub entreprise entreprise doxee rek dee day njëkk am difficulté commencé dégraisser de son personnel parce que mënatu leen fay. licenciement pour motif économique bu yàggee nga commencé dégg redressement judiciaire liquidation judiciaire dootoo ko dégg ñaata société lañ fi nekkoon di dégg te déggatuñ leen fii lañ jaar ay ñoom Sotiba ay ñoom Bata ak ñeneen ak ñeneen fii lañ jaar nekkoon nañ fi doon dox normal jékki-jékki nekkatuñ fi bukk bi leen rey nag di mal gouvernance boo xamante ne ay régime successif ñoo ko entretenir pire ñuy dem di suqale ay entreprise française di leen jox ay marché yoo xamante ne suñu entreprise ñoo ko gën a yelool fii ci suñu biir réew bukki boobu nag dafa suurul te moo nekk di lekk entreprise yu ñu nekk fii dafa nekk ay entreprise yu mag moo ñëpp tax ñëpp dégg ko dégg ngeen yuuxu bukki waa bu moom jaaro yuuxu keroog mooy wallu leen mu balaa musiba di am te ñu fa nekk doon liggéey nag ñu dàq leen foog nga ne yeneen entreprise nekk nañu fi yu viable yu leen mën a capter pour employé waat leen encore que ça entreprise une c'est une Ce n'est vocation pas de récupérer des licenciés d'autres entreprises parce que c'est serait un personnel tournant De dem recruter ñeneen mais comme ça après chaque jour ils ont quand même fait tout. ont dit que le pays marche bien les finances sont au point ak faites que le pays n'a jamais été autant en chantier Mais comment peut-on avoir des entreprises sénégalaises qui évoluent dans le BTP, une entreprise aussi solide que, le, que, que, que, que C2, avec les gens qui ont des am problème Non, mais attends. Euh, tant que nous avons des musiba rek la mën a jur te musiba weesuwul nag per de famille boo xamante ne dafa am lu mu yaakaaroon di dundal njabootam nga xañ ko ko parce que seetaan nga ba lu ñu mënoon moytu ñu moytu ko ci naka ni Donald Trump di waxee l'Amérique aux Américains wala nous fexé ba Amérique gëna am mais les marchés publics du Sénégal aux Sénégalais dans toute la mesure du possible Si nous nek ñu en jeune venture pour ñom ñu am expérience mais si ko défal duñ créer champion national Sénégal du am il faut que nous fassions def très très très attention lii ni ni, lii raam ci ni, nii euh, fu muy dem jàmm amu fa de jàmm te alerte bi nak nit ñaa ngi alerte alerte alerte mais tu as l'impression que suñu gouvernement yi seen yoon nekku ci c'est comme si on était dans un sauve-qui-peut où ils nous eux-mêmes qui doivent nous faire espérer n'ont plus d'espoir par rapport à ni dëkk bi war a mën a redresser woo ku nekk yaa ngi sëgg fi nga sëgg di di di di di di di maq li nga mën a maq loo xamante ne ci askan wi la waroon dem pour des comptes génne ci semaine bii mel nu ñu mel moo tax rapport yi mel nu ñu mel après waxul dara lu dul oui on va créer une une commission pour le suivi amul suivi la meilleure façon de ne pas s'occuper d'un problème c'est de créer une commission am na ku ko doon wax lu mu wax noonu nag te moom du moom moo waxoon ne l'OFNAC c'est pour les les les les les les les gouvernants elle a créé c'était pour l'équipe sortante mais looy fi créé te commission amna ñu ko wara jël en charge kay bàyyi leen ñu jël en charge amul benn commission bo fi créé ni yoon def liggéeyam rek mais ça c'est la meilleure façon de tuer une économie et l'espoir dans un pays c'est de permettre tous les types de pré mën fa am te du te du mujj comme ni ñu déggee ni ñu wax ay rapport affaire 94 milliards le professeur a informé le doyen des juges de sa décision de ne pas informer mais après ñuy wax émergence émergence de condition yi lay xewe Je ngi jégalu ci euh, guddal gi di leen ñaanal euh, ci dimanche bi di ñaan aussi yàlla mayet ñu occasion ñu teewaat pour waxtaan ci suñu chronique bi ak ci Assalamu sujet alaikum wa rahmatullah